waa ji loolu ngi fay si loo nekk ah maa yaa ngi yaa ngi toog nii mel ni ku ku amut liggéey xanaa jeexaluloo sa koos bi. jeexal naa suma koos bi waaye maa ngi bugg a commencé suma liggéey bi mu ngi mel ni bagage yi yëpp a maa ngi toog. xanaa demuloo inko. <laughs> lan mooy inko. da xam lan mooy inko. waaw fii mooy inko soo ñëwee suñ place. Mhm. looy njëkk a bàyyi xel mooy. mooy inko. maanaam IMG CO. waaw kay. am na nag ci dëkk bi fii. Mhm. place yu bari. ñu ngey jël suñu kolo bi di ko mbuboo waa pire pire ji fii la bu ko jaawaale hmm. soo ñëwee rek seetal brand bi hmm. lii mooy di impôt si nekkee kapinta nga hmm. maçon fiita mécanique bi sax kaa ñu si biir ji kontaan naa de lii mooy impôt soo fi ñëwee rek kontaan fii nag Jimpex mooy seen maakaan bu mag bi waaw soo demee Sukuta traffic light Não ngi fa amee tamit beneen branch maanaam Sukuta traffic light am nañ fa beneen branch am nañ fa Benen branch ak Inco aduna bi mu ngi si sa loxo Yes, Assalamualaikum, Assalamualaikum Sumagai. This is another time. This is another Korka Street Talk. We are right here at Turntable. So moy lolu comme luma len do wax Korka Street Talk. Today have some gifts. So inko dañ ma jox ay bagage yu ma wara maye tay. So tay show bi special special show la moo nekka. So dañ ma ay bagage yu ma maye ay t-shirt, xam nga ak lan ak ah, ak box bi ni box bi bi nga xam ne ne memory card mu fa flash drive mu fa kii holder mu ngi fa ak bagage yu bëree bëree bëri ak siyo bi so yëpp laay mayee tey so suma gars yi nag Korka Street la tey maa ngi ànd ak suma fana fana bu ndaw bi suma caméraman bu ndaw bi <laughs> moo nekk Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cissé Cheikh ñu dugg si town bi ñu xool nit yi kan mooy answer collection bi ñu may leen bagage yi nii tey ak Inco bagage yi dañ bëri nag si moto bi kaay leen ñu dem uy ma dama la bëgg a may tiisaat xoolal tiisaat yi inko laa la bëgg a may bi bini dama la ko bëgg a may yaa yikul yaa Mohamed laa Mohamed ah eh, sa tur bi moom neex na yaa yikul Mohamed waaye waaw waaye Korka waaw waaye ruskat bu Yusufa Yusufa ah. fi amee ay bagage ma war a mayee bagage yi inko waaw wasu la yaa yikul maa ngi ok xam bu ñu jógee si presidential election waaw ah, ban moo moo gën a registered voters ban region which ah, eh, registered voters foog na KMC la daal ah ok ba moo nekk second foog naa <laughs> ban façon xeer nga dut fekk si si géej which kind of stone did you will not find it in the sea. ban façon xeer. waaw kon ka boobu xaw ma ko. <laughs> non non. léegi xam nga lu ñoo def ah. dama t-shirt. ok thank you. voilà jërëjëf awa sista naka. jaabare. sista yaa Alima. Alima xam nga yàggu bu si presidential election. waaye. ban region si si si si region yi ban region moo gën a registered voters. Oh, well, to be honest, nak, Setan County in Biyop, nak. Hmm. Oh, I was busy though, but I don't know exactly. Mm. Yeah. Really? Yeah. Hamulo ban region tamin mo neka second. Second now. Mm. I wasn't concentrating on it. Mm. Ah, okay. Legi ban façon hair nga dut fekk ci geej? Ban fason Hair. Nga du nga xamne do ko fekk ci geej. <laughs> Eh, korka hair. Hmm. Redstone. Redstone. Redstone na mm. ko Oli which school are you attending Oli. Burfoot. ah Burfoot. Burfoot. Mm, uh, which grade are you. grade seven. can you sing the national anthem. yes. are you sure. Mm. ah okay. now which stone you can't find in the sea. I don't know. you don't know. no. Ah, young man naka. So yaa ngi ku la ah? soo bàyyee rek non yaa tudd naka man man maay Bagamoni Bagamoni ana rap nga No man I'm more than a rapper ah yeah, ah, Joma Joma acapella It's all about the dust the brother if you get money you ain't seen this world so you gotta be a real hustler mm -hmm. and I gotta be a real struggle uh -huh. so you gotta be a real maintainer yes I It's all about the daughter sister. Uh -huh. If you uh-huh. get money, you ain't seen this world sister. So you gotta be a real hustler. Uh. Uy ma yow. Yeah. Uh-huh. Mm-hmm. Xam nga ñu ngi jógee si élection yàggul. waaw uh-huh. waaw. si président uh, uh, uh, si ban region. wow. moo gën a register voters. ban region mo gëna register voters. wow. I think gars sané Sani lañ dé gëna wax dé mo dé gëna am lifin. Sani Menteren si ban region la nekk. Sani Menteren mu ngi under I don't know. Ah. under KMC I don't know yeah. Combo area. Ah. mooy Combo North bi Gunjur ak yooyu noonu waaw. Ah, yee yee. waaw leen ma ñëw waaw léegi yow mm-hmm. ah. ban xeer nga dut fekk si géej. ban xeer nga dut fekk si ban façon xeer nga dut fekk si géej. ban façon xeer. nga dut fekka si géej. ah loolu de moom xeer géej bi moom. Hmm. géej mooy xeer bu xonxa. Ah. Hmm. ok jërëjëf. Hmm. léegi nag lu ma def. dama bi pour. ko may naa ko. waaw yaa ah, waay Korka jërëjëf yaa ngi yow sa soo daf dee ne. Ah. man may Bagamoni. Bagamoni Gambia yëpp xos yu ci yëpp dañu war a mel ni man. ut. dama la bëgg a may siyo bii yaa tudd naka. Mariama. Wow, Mariama Gambia nga teru? Wow. xam nga ñu ngi joggé ci élection yaagut yes ban région si Gambia ño gëna register voters ah ah bëgguloo si I'm fine what is your name I am Basiru. Basiru. Fadera, yeah. Basiru Fadera. Yeah. You know, we are just from presidential election. Mm Which region registered more voters? That's West Coast region. Which region was the second one? Um, no, I don't remember. Mm. I don't know. What type of stone you can't find in the sea? Sedimentary. Huh? Sedimentary. You mean rock or stone? Rock, yes. Yeah, sedimentary rock. Those what are the rocks. Sedimentary rock. these are the rocks that are strong. They are the, they are the strong rocks. Okay. Uh, beside the ozone, you see them on the, around the ozone. So you don't find them in the sea. Um, probably yeah. You find them in the sea. I mean, which type of rock you can not find in the sea? You can't. Uh, you can't find in the you sea. Can't find in the sea. Um, I don't remember. Thank you. No. Thank you very much. Bro naka. maa ngi fi rek. yaa tudd naka. Mohamed. ah Mohamed waaw nañu xool caméra bi rek looy daw. <laughs> dama ñaaw moo tax. da nga ñaaw kon xam nga ko. <laughs> am naa ko bu baax. waaw ñaaw a génn dee na. xale yi nangu ñu àndoom moo tax. lu tax nañu ñu àndoom ñu ne. xaw ma xaalis moo tax. amuloo xaalis te da nga ñaaw xaalis waaw. boobu garaaw na di. <laughs> ma ne xam nga yaagut bu yaagut bu ñu jógee si présidentielle élection. Eh, boo ma see wax lu sori moom parce que élection fekkul ma fi moo tax. jërëjëf waaw jërëjëf. sista naka. ñaan naa la rombal. dama la may siyo. Eh, man ñaan naa la yow. mais nag mais nag maa la maa la a wax ma tey. non nañ wax rek. sant yàlla rek. yaa tudd naka. man Ami Samb laa. Ami Samb ma suume. <laughs> suume ke. loolu laa. Ah, obe Jaw Brokap. waaw wàcc naa si kër. i bee i bee nu dee waxee leeka lekam furiyaf wa ye furiyaf e kangulay man duma e kangulay ñun leka lekk angol kangulay do leka e kangulay kon yo do real jola real jola dafa lekk e kangulay mané xam nga yagul buñ joggé ya ci presidential election wa xamna lolu ah, ban region ban gox mo gëna register nit yu bari ah basse ya? Hmm. ya ban façon xeer nga dut fekk ci geej ana suuf de xeeri suuf bi doko fekk ci geej de de de ana suuf mom xanaa suufi sele suufi sele xam <laughs> yo jola nga wa jola joolaa yi ñoom dañ bu ga sansé man maa la may tisat tiisaat yi inko ñola ko jox ah, wa may la ko de nga na sol ko nak soko solé nga dem so dem bu karabu ma nga fecca bukarabu déedéet mu ma bu karabu jola yi dinañ sol nii nag dinañ ko sansé jola bi su solé li hello bro yes ma ya ba ya ba yo. ya tu tudd naka man amel len koy wax amel Ahmed ah So amer xam nga yagul buñ ñu ci si présidential election. yes. ban gox ci Gambia bi fi mo gëna register ñu bari. non man nak mom loolu mom xam mom because man politique mom yëngu ma ci hmm. waaw yëngu ma ci afrique ana xanaa votu loo. non man sénégalais la. ah ok wa légui yo sénégalais nga wa légui amna lo loo xam ko laajtee loolu is général. ban façon xeer nga dut fekk si géej. ban façon xeer. waaw nga dut fekk si géej. waaw si géej. non man xam ko man dama dem La la la la la xawma di. So ma la question ma ansa ko ah. xoolal dañoo play game su ma la natee correction soo ma natee correction nga ma ansa ko ah, ah, ah, ah da maa may ten dalasi si nekkee yow man dama la natee correction nga ansa ko dinaa la may siyo wala ma may la flash drive flash drive moo fi nekk ak ay pen ak key holder léegi ma laajte la correction. waaw laajte ma su nekkee su ma ne su nekkee ansuma ansa ansanaa correction bi. ansanaa la woon yaa maa jot ten dalasi. waaw xam naa. baax na élection amutee loñ moom yaa ko koos de ñu dem. ma laajte la question. <laughs> question bu ma bëgg eh, any question waaw. <clears throat> use the mic. Um, ñaata nit ñoo nekk bi. <laughs> ñaari nit góor ak jigéen. waaw. <laughs> loo bëgg a nit nga wax di góor ak jigéen la. xaw ma waaye sa sikkin bi dafa weex léegi. waaw mag léegi. am naa da nga mag waaw am naa tati yees. yee. naka la. maa ngi cool ok ah? xam nga yàggul bu ñu jógee si présidential election. waaw waaw waaw. si yoon mhm. ban gox si Gambie bi ban région. moo gën a register voters. ban région moo gën a voters. eh Korka. loolu noonu loolu la xawma ko. Hmm. ban façon xeer nga dut si géej. ban façon xeer nga dut si géej. <laughs> way non loolu tamit xaw ma. xamuloo jërëjëf ah, fa demee nag. nga ne naka nag muy cool man. yaa man naka. man Jim laa tudd. Jim. yaa Jim. xam nga Gambia yàggul bu ñu jógee si presidential election. waaw loolu dëgg ban region moo gën a register highest voters. right now. Hmm. Um, du Brikama. ah. si ban région la nekk. Brikama mu ngi West Coast. Ah. waaw ban mooy second. no xawma ma buy sakoon nak reele ya ban xeer nga dut fekk si geej ban xeer nga dut gis si geej ban xeer nga dut gis si geej wa ko korka laaj ma way ko korka nga baye di ma laaj ko ak sen yooyu non ah. way wa wa ba na amu problème léegi nga lu ñoo def ha may na t-shirt bi Ya, ba Tarap. ki kiusel ñun ba xalaal si kanam rek ba ah. ko korka Tarap. bo ya ba bay ma ñu ma ñu xeer dut fekk si geej bro yaa tura naka man tu tura baylo baylo naka santa ba baylo ba no way jam dunkay soo si si élection yi Gambie bi yàggul buñ fa joggé ban ban région mo gëna register ñu bari. ñu gëna register ñu bari. Brikama la. han Brikama. Hmm. waaw. légui ban moy seconde. seconde Basse. ban ban ban her nga dul fekk ci géej. her bu jere jërëjëf yow Ansu Lo yaa ba tara. <laughs> maa na yow ya dro naka. Lamine. Lamine. Bojang yeah. Lamine Bojang. yeah. ah, ah, ah ban région moo gën a register ñu bari. during the election. during the election. Ah. ban mooy second. second non boobu moo nga xaw ma. ban xeer nga fekk si géej. xeer bi xeer bu ñuul la. jërëjëf hello. hello. how are you. Nay, we are just from presidential election. Which region registered the more more, more, more uh, uh, voters? The region, all all you Hmm? Which region hmm. registered the most? Yes. The highest. The highest. Yes. All Yundum. All Yundum. All Yundum is in which region? Region two. Which administrative region? What type of rock you cannot find in the sea? Who is the first Gambian woman to have PhD? I don't know. <laughs> ah, bom, bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa nak. Ah ah. Mariam. Mariam. Mariam, I want you to ask me a question. And I will give you a package. If I answer the question, you will give me ten dollars. No, if I answer the question, I will give you this package. And I will ask you a question. If you don't answer it, you will give me ten dollars. I should ask you a question. Yes. How old are you? 30. 30. What is your name, Chief? Me, Alfred. Huh? Alfred. Alfred. Come, come here. <laughs> Alfred. Uh, which, regi which region registered the highest vote? Which region registered the highest vote? Mm. No, I don't know about it. Mm. No. Ah, okay. Who is the first Gambian woman to have PhD? PhD, the first one. <laughs> I don't know that. Huh? <laughs> I don't know. So, mos waaw once rek. Hmm. bañ yàlla Burkina am independent. well I fii laa juddoo. ah ok. Mhm. waa léegi ah, xam nga ñu ngi jógee si presidential election yaagut ban region moo gën a am ah, ah, registration bu bari. Oh, western western hmm. moo ci toppa Mm, after school nga am combo. ban mm-hmm. combo. like Serekunda. Ah. Mm-hmm. Ah, ah, ban jigéen moo njëkk a am PhD Gambien ban jigéeni Gambien moo njëkk a am PhD. well I have no idea anyway. non mm. non ban façon xeer nga dut fekka si géej. ban façon. ban façon xeer nga dut fekka si géej. ban façon xeer. soo géej si biir géej bi. xam nga xeer yaa ngi fa ban façon xeer nga fa dut fekka hmm. boo façon xeer la merci I don't know ah, léegi yow da nga use computer non da nga use pen pen waaw hmm. waaw da nga use pen da nga use flash drive non da nga use flash non ah ok bari nga root

Okay. Uh, how old are you? I am 12 years old. Okay. If 10 boys clear a land of a grass for five minutes, how long it will take for five boys? Ten. No, I don't know. Ten. maa tudd Boubacar. Boubacar. Boubacar waaw. Boubacar xam nga yàggut Gambie bu ñu jógee élection. waaw ban région moo gën a am ah, registered voters. ban région moo gën a am registered voters. waaw. Euh, kon ka xaw ma. Ah? xaw ma. Hmm. Mhm. ban façon xeer nga dut fekk si géej. ban façon. xeer nga xam ne ne soo si géej bi doo ko fa fekka doo ko fa jëlee. xanaa xeer boo xam ne suuf la de. Ah. comme soo ko fa dowee dafa say. waaw. <laughs> man Njaga Keita laa tudd. Njaga Keita. ok xam nga yàggut bu Gambia jógee présidential election. si election boobu noonu ban gox moo gën a am nit yu bindu ñu bari si wàllum euh, euh, vote bi. non boobu nag xaw ma si dara bi comme man xaw ma sénégalais. ah ok waaw boobu xaw ma si lu bari dafa nekk de. ban façon xeer nga dee fekk si géej bi boo ndax ban façon xeer boo xam ne soo demee si géej bi doo ko fa fekk mooy ban. ban façon xeer boo xam ne soo demee foofu doo fa fekk. waaw. géej géej bëri xeer a ban. yeah bëri na ah, ah. jërëjëf jërëjëf yi welcome. Ah. xam nga suma gars rek comme ñu leen di ñoo jox suñu ansas yi ansas yi nag lu ñu doon laajte rek mooy kan moo nekk di first Gambian lady jigéen bi nga xam ne ne moo njëkk am PhD ban Gambian jigéen moo njëkk am PhD moo nekk kan. Florence Mahoney. Florence Mahoney moo nekk di first Gambian jigéen bu am PhD second question bi ñu doon laajte tamit ban region. Ah, ban ban région moo gën a registers moo voters ban région moo gën a register moo voters. Ah, West Coast region 359,451. West Coast region ñoo register 359,451. yeah. ok KMC mooy second. 179,800. 179,800. so suma ga yi Korka Street Talk la woon lii laa leen amaloon tey ak suma caméraman bi Cheikh Tidiane bye fine loo nekk ah maa ngi rek. yow yaa ngi yaa ngi toog nii mel ni ku ku amut liggéey xanaa jeexaluloo sa course bi. jeexal naa suma course bi maa ngi bugg a commencé suma liggéey bi mu ngi mel ni bagage yi yëpp a seer maa ngi toog. xanaa demuloo inko. <laughs> lan moo inko. da xam lan mooy inko. waaw fii mooy inko. soo ñëwee suñ place. Mhm. looy njëkk a bàyyi xel mooy. mooy inko. maanaam ING CO. waaw kay am na nag ci dëkk bi fii. Mhm. place yu bari. ñu ngay jël suñu kolo bi di ko waa pire pire ji fii la bu ko jaawaale hmm. soo ñëwee rek seetal brand bi hmm. lii mooy di impo si nekkee kapinta nga hmm. maçon fiita mécanique bi sax kaa ñu si biir ji kontaan naa de lii mooy inko soo fi ñëwee rek kontaan fii nag Jimpex mooy seen maakaan bu mag bi waaw soo demee da traffic light ñu ngi fa amee Benen beneen branch maanaam da traffic light am nañ fa Benen branch am nañ fa Benen branch ak Inco aduna bi mu ngi